auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabilu mihi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu yéen téléspectateurs yi nga xamante ni yéenay bàyyi xel émission bu rëy bu am solo bii di faj sa jàngoro ñu dellu siwaat tey ci beneen numéro indi waatal leen ko seet si kilifa gu baax seet si kilifa gu mag seet si koo xamante ni tam borom xam la boo xamante ni macha allah kenn naataatleetul li muy def ci senegal rawatina ci bitim réew ñu gën ko xam ci Alaaji Demba Touré waaye dama cey dégg ci biir turam wa dàkkantal woo xamante ni bëggoon naa moom bu nuyook askan wi ba noppi daal di ñuy wax lan moo waral dàkkantal boobu ñu naan kan Kanka Moussa kon su ko defee rek dañuy daal di jokkoo ki nga xamante ni mooy ki nga xam ne Serigne Demba Touré Kanka Moussa su ko defee moom itam mu nuyook askan wi bu noppee ñu door a dugg ci laaj yi xool waxtaan ak moom ngir mën a faj jàngoroy doomu aadama yi Alaaji Demba ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziare bu baax a baax. di nuyu nag euh, mbokk mbokk yamante ni ñu nekk si wàllu internet bi ñu xamante ni si nekk wàllu diaspora bi ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziare di ñaanal jàmm di leen ñaanal salaam. di ñaan si yàlla nañ tàmbali si bisimilah rahmaani rahiim ci si alhamdulilah rabbil aalamiina di ñaan yàlla nag yàlla suñu borom defal réew mu senegal jàmm defal réew mu Sénégal salaamun dafa réew mu Sénégal xewal bi saawaan baawaan may ñu noonu aussi tamit nawet bu am barke ak nawet naataange ak nawet bi xamante ni bu ànd ak euh, ndox bu sedd guy yàlla suñu borom barkal nawet bi barkal xamante ni lépp luñ ci bay mbaa luñ ci jiw sooba yàlla ñaan nañ ci yàlla suñu borom si nawet bi yàlla def ko dafa am nag bis ak waxtu ak heure ak délai moo waral nit di ñaanlu di sabablu Muhammad sallallahu alayhi mu ne ngannaay jullit mooy ñaan jullit su bañee daw dafay ñaanlu sama sëriñ daawoon ndox mu ne xale yaramam warul woow warul fen dafa war a sangatu saa su ne ba yaram bi tooy xep nga takk moo tax ñu ne gallaaj gàlloo la waaw parce que ni day takk soo takkee yaram bi fekkee amul saafara bi nga sangu mbaa bi nga diw su amee li nga takk mooy porté sa yaram même bu dul pexe doomu adama sax ngelaw seetaane rab jinne dafa ànd ak sunu dund suñu dund dafa ànd ak ñun suñu biir loolu dafa ànd ak suñu biir fekkee yaa ngi dund rek rab jinne seytaane ngelaw lépp day ànd ak yow parce que mun ngaa génn fii léegi ngelaw bi ëpp la rek am lu mu àndal dugg la mooy faral may waral di wax des fois ma ne leen nit du wax kenn mënu maa liggéey déedéet kenn mënu maa liggéey déedéet bañ ñaa baat boobu da ngay sabablu kay nga aar sa bopp nga aar sa yaram su la nit defee mu dellu ci ko am mbaa fa naree est sud est comme baltins soo dóoree mu dellu si waaye nag kenn mënu maa liggéey loolu wax bu yàggu la parce que bu fekkee mënul liggéey mu xaatim la jàppul mu fas la jàppul mu jat la jàppul mu ñaan jàppul am na lu muy boole si ngelaw ngelaw moom kenn mënu kaa waaw te aussi doomu adama moom suy dund dafa war a sabablu di ñaan lu saa su ne ñaan moom mooy ngànnaay jullit waaw te aussi ñaan mooy doole alxuraan mu doon nag ñaan bu baax ak ñaan bi xamante bu yàlla santaane ak bu yàlla nangu parce que soo gisee di waral doomu adama di séetlu mbiram di seetlu ak soxlam di seetlu ak wér-gu-yaramam parce que mun nga xëy dara arrivé la ñu ne la ngelaw la ñu ne la korte la ñu ne la dañ kaa liggéey ñu ne la rab la ñu ne la seetaane la lépp nga ci biir nit moom soo feebaree ñaar rek demal si sëriñ bi nga bi la doy ak ki nga yaakaar mu yaakaar yàlla wala nga dem hôpital feebar moom loolu kese moo koy hôpital mbaa nga dem si sëriñ sëriñ na du yàlla wante nag yàlla suñu borom am na lu mu ko may am na lu mu ko dénkaane waaw parce que wax naa la ko mun yàlla la ku am yàlla la ku xam yàlla la kanka Moussa bi fekkee mun naa ko wax parce que turu kilifa mag la muy xam nga rek suñu patron wala mun mun naa wala voilà léegi su ko defee kilifa mag la kooku moom tuddoon turu boobu ndeysaan moo toog ba yàgg def émission pare kontaan mu ne diw wal ma diw mu ñëw parce que moom mooy Kanka Moussa Kanka Moussa na sama turandoo boobu kooku dem na ba mag toogul dafa taxaw ba mag diw taw toogul dafa taxaw waaw ndax lan lu ko yàlla may ci njàmbaarte si mun-mun si am-am si xam-xam si doole alxuraan si doole yàlla suñu borom mm-hmm. waaw ma ñëwaat si wàllu ki nga xamante ni doomu aadama ki nga xamante ni mu daal di nekk si àdduna mbiram di yàqu mbaa jafe-jafe bi di bëri di moom mbaa tolof tolof bii di bëri su moom mbaa yàqu-yàqu bii di bëri si moom du xam nan la du xam nax la loolu mooy mën mu ne feebar dañ koy faj faj bi nag yàlla la waaw soo demee hôpital docteur bi ngay jàkkaarloo tey dalay considéré xool la mu ne ah kii de lii moo ko dal waaw parce que xam xam-xam dafa bëri façon man su ma neexee su ma neexee lu ma ci yàlla may mun naa saa bañ a jël seet petaaw mbaa bañ a def lisikaar mbaa bañ a def suuf mbaa bañ a def ndox mbaa bañ a def tomb mbaa bañ a jël kurus su ma la xoolee jàkkaarloo sax xarxarkaan da xam ne kii lii moo ko dal loolu yàlla may na ma loolu. Hmm. kon ci biir waaw bari na façon suuf am na ndox am na tomb am na moom lay bambara yi tomb waaw seet moom bari na façon ku ne ak lu muy seete ak lu ko yàlla mu ne ku ne. man nag bu man nag bu soobee yàlla xam wax naa la mun lépp am lépp xam lépp yàlla la wante am na lu mu si yàlla jóg loolu bu ma la ci wax bii lii moo am mbaa nii la demee bu soobee yàlla suñu boroom di nga dem ba bis ñëw nga ne di waxoon na ma ko fekk kat xamoo ko woon waaw parce que seet moom nekkul pour doomu adama di xalaat di wax lu ko neex mbaa di programme lu ko neex déedéet nekkul yomb déedéet parce seet mbirum jinne la surtout soo ne wàllu gisaane mbirum jinne la ñoom ñoo lay deey wax la nga ne ñoo ne diwdee li ak lii ak lii moo ko dal yow tamit nga daal di gis loolu si image bi ñu wax la ko ngay wax borom moo tax nga ne ko sarakal ni defal li wala lii moo ko dawal lii moo ko arrivé parce que seet mbirum jinne la de yaa xam ba mu mënta doon nag nga def gisaane bi nga def suuf bi nga def ndox bi ba nga def tomb bi kanta listikaar listikaar moom mbiru suñu borom la te aussi boobu yàlla moo ko suñu borom sax moo ko digle yenn nii moom comme li ñuy wax aada ak cosaan la su lañ ko fekkee suñu maam yi du ko def ñun tamit ñi judd doon ko ñu judd jàng ko waaw ñi tamit ñu encore ñu may leen ñu jox leen ko ko mooy doon bi mooy doom bi rek n'est-ce pas voilà waaw kay mbir suñu borom moo jëglal jaamam lu ko neex mhm. moo suturaal jaamam lu ko neex suuf tey soo seetee tey comme ñu nekk bitim réew bëggoo mu dellu si Afrique tey am na li ngay def soo ko defee suuf bi nga naaj ko nga bës tàngal mosute ko Sénégal hmm? maa la wax loolu xanaa nga dindi ko nga jat nga dindi affaire bi soo ko fankee day ñëw même si moo aéroport day dëpp day dëpp yu ñëwaat moo tax suuf dafa am barke hmm. parce que ci lañuy ñuy jóge ci lañuy ñuy loo ci xamul suuf saa kenn waru ci di ci yëngal di ci def ay bruit ay bruit parce que baaxul yàlla dafa teral suuf hmm. suuf ak ndox suñu borom daf ko teral waaw léegi nag seet suuf du fen am na de seet suuf du fen sama mbokk sama pël yi am nañu ko xam waaw xam ni que moom da ngay wax li xamante ni la wóor ak li nga xamante ni li nga xam am na ko xam man dégg naa wante man moom côté boobu ma dégg la xaw moo ko sama xam-xam eggagul foofu comme suuf buy dund ak bu dee ah déedéet man moom dégg naa ñu ko wante man sama xam-xam eggagul foofu nag xam naa ci am naa ci moom lu ma leer moom suuf moom lu mu la wax moom du deñ déedéet même gisaane bu ñuy wax nii dugg na fii génn na fii soo ko mu ne nga xam ko parce que Baye Talla naa la xamal te benn mbir muy lu Sénégalais baatu nga topp nga ne diw lii lay def diw lu muy def yàlla d'accordu ci yàlla àndu ci wante moom de su koy def su dee safara la jëm mm-hmm. loolu baatu bu tiis la mm-hmm. baatu bu muy métti la parce que ajana suñu borom mooy xool jaamam ku ko neex dugal ko foofu nit jaamu na yàlla ba dee dugg safara nit jaamu na yàlla ba dee dugg ajana nit ñàkk na jaamu yàlla dee dugg ajana parce que mbir suñu borom la côté ajana côté safara mbir suñu borom la loolu nekkul ñun suñu cadre man sama xam-xam eggul foofu man sax xamu fu ma demee fan laa jëm mm-hmm. wante nag rafet naa ñaan naa yàlla dee dugg ajana mooy waral nit di sabab lu ñu ne ñaan naa yàlla su mu dee yàlla mu yàlla yóbbu ajana parce que jaam sabab lu am rek ak rafet njort yërmande suñu borom yaatu na yërmande suñu borom pour jaam la soo xoolee lu mu bindi xam nga bari na wante doomu adama la ci gën a fonk doomu adama la ci gën a yërëm doomu adama la ci gën a bëgg kon nit baatu araam na baatu safar man duma ko topp di ko jëmale sama morom doomu adama parce que xaw ma ëllëg li may fekkee foofu wax bu àgg saa yàlla la neex li may wax ni mu àgg saa yàlla la neex jaam day sabablu bind jox la mbaa mu daal di def sunguf jox la mbaa mu fas takka nga jox la day sabablu yàlla na mooy faj parce que moom mooy nangu da koy ñaan mu ne la amin nga ñaan ko mu ne la déedéet ñu sëriñ bi fenn ma sëriñ bi wax na mu la amul te fekk du sëriñ bi suñu borom la waaw xam nga wax naa la sànq ma ne la nit dina dem hôpital ñu consulté ko xool docteur bi xam lii moo koy faj ndeysaan moo waral mu engagé ko nekk ci yàlla may ko ci ndam mm. sëriñ bi da ngay ñëw mu ne kii kat rab la di kat cat la kii kat ngelaw la kii kat dañ kaa liggéey walla kii kat dañ kaa naawtal mm-hmm. wala kii kat dañ kaa dëddale léegi nag pexe yi mu war a def moom moom moo xam ban pexe lay jaar ak fu mu war a sukkandikoo parce que adduna wax naa lépp yaakaar la rek mun mm-hmm. na yaakaar kat butéel ndox bi ñu jàkkaarloo tey moo koy faj wala alxuraan bi moo koy faj wala sunguf bi moo koy faj ci kon nag moom tamit yàlla may ko am lu mu ci xam mm-hmm. su defee nag su defee loolu mu ñaanal jaam bi jàngoro bu mu am noonu ko bëgg dëñ yàlla suñu borom nangu ko mu ne ko amin yal yàlla fajal aajo bi ajo bi faju mu ne kat sëriñ diw moom faj fekk du sëriñ bi yàlla la ñu jëlee dem si sëriñ mu laam-laam mbaa mu jaar si kenn mu ne Balde est-ce que Touré mun na exemple est-ce que Touré xam na Touré munul xamulante yàlla mun na yàlla xam yàlla moo ko bindi mhm. waaw parce que bu muy ñëw indaalul dara ma ne la dafa ñëw fi yàlla jox ko lépp yàlla won ko lépp kon nag soo amee xel ñaar nga duute rek su naroon baax sax soo amul sens day yokk waaw des fois ñu def ma yow mu ne diw dafa ma joxoon garab nangam est-ce que baax na mbaa baaxu ma ne ko wax dégg yàlla garab moom soo ci amee sikk sàkk nga am ci yaakaar rek baaxul rek kon sooy neexee nga bàyyi parce que du la jëriñ dara de du la jëriñ dara parce que loo gëmul du la jëriñ dara adduna loo loo am loo gis gëm-gëm la jaamu yàlla sax balaa nga koy jaamu da ngay gëm suñu borom nga xam suñu borom nga sell nga gëm suñu borom nga jaamu yàlla adduna loo jiitalul ngëm-ngëm du la jëriñ dara parce que da ngay def sikki sàkk sikki sàkk na baaxul léegi jaam bi bu feebaree nga sabablu nga ne dama koy faj mbaa dama koy ñaanal lu mu soxla jafe-jafe yi dëñ yàlla dana la kat jaam bi de nangul naa la sama ñaan bi nga diis ni bi ma diis ni pour sama borom sama borom jaam bi ma diisal ni soxlam dinaa la ko fajal dinaa la ko nanguwul yàlla nee na la amin aajo bi faju nga naan sëriñ bi moom faj fekk yàlla la man bokk ma ñuy xamante ni dañuy ñàkk jiitor yàlla déedéet jamais man lépp li ma dama ne incha allah bu ci yàlla àndee parce que laaw buur moo mun laaw buur moo xam laaw buur moo am sekkere am na da ko tasaaro si jaam yi rek tasaaro si jaam waaw moom nag mooy nangu moom nag mooy dogal ñu mhm, ñun dañuy sabablu xam nga jaaro dafa nekk li xamante ni lu am solo la mhm. sallallahu alayhi wa sallam génn mbindeef dafa digle doomu adama di takk jaaro xaalis mhm. ci kaw nag nga def ci lu yàlla santaane ak lu yàlla bugg ak li xamante ni lu dagan ak lu sell jaar la bari na façon te dafa wute nag man de jaar bi may yor mm-hmm. akika lay doon comme bi ma takk nii mm-hmm. ak xaatumu Suleymaani mm-hmm. waaw mooy yii mooy akika parce que per bi ngay gis nii rek gàllaaj la même bu amul dara ci biir per bi rek gàllaaj la damay gis per bu bulo bu balance am na waaw lu waral mooy soxla yi bii tey cat la bu marron bi pour cat ak pour bët bu vert bi aussi tamit pour wërsëg la pour ubbeeku la bulo moom ku ne xam na ni bulo moom dafa am solo même yëri bulo rek te boo ko boo koy sol tey lu mel ni cat làmmin wërsëg ubbeeku lépp dina la ko indil te dina la défendre lu bon du es yëri bu bulo soo koy sol te yëri bulo mhm. macha allah parce que dina la seen fale ngay ñëw yëri bi rafet yëri bi la njëkk a tudd mhm. kon catu na la nga es yëri bi lay gën a tàkk mu naw la mhm. su defee nag yëri bi nga sol fekkee bulo bi day défendre bëtam bët défendre laminam du la gàllankoor si yére bi lay yem. Mhm. <laughs> dégg nga baax may waxee yére bulo benn paa moom ma ko waxoon kotunu mhm. mhm. mu ne ma yëri bulo dafa am solo mbaxana bulo dafa am solo comme genre koppati yi dafa am solo su koy nit di sol dafa bokk la mante ni dalay défendre nit lu bon du gaaw a es waaw su doon balaa su doon leneen lépp day fang jaar góor waaw boobu moom macha allah waaw boobu moom macha allah ak bu ak bu verte bi. waaw boobu boobu xam nga lu tax. Mhm. dafa fànk lu bon. lu tax sa jinne yóbbu ko. Mhm. lu tax ñu yóbbu ko si ndox mi mu dem. Mhm. dafa fànk lu bari. te boobu soo xamoon dañ ci waroon sottiwaale soow wane boobu waruloon diir weer amaatoo ko soo xoolee somoon bu ma demee am na lu bari jot nga ko macha allah. am na lu bari buntu ubbeeku na. rawaan yi ñoo soxla parce que yow da war a sarake ndox ba nga dem sotti si géej gi soo parce que sa rawaan rawaan ndox la parce que ñii seen rawaan ndox la ñii suuf ñi ngelaw ñi safara te sa bos ndox la <coughs> maa ngi jëggul su defee wàllu li ma wax léegi di jëggulwaat bi sa kànnaar bi te soo jëlee caabi ji comme ni nga tijj fi si ginnaaw xam nga day ubbeeku léegi kon li nga tëjoon kon tijjeeku na su fekkee baaxoon na baax na su fekkee tamit baaxul na kon tëj nga rek kon toj na boobu mu pare na léegi lii loo moo tax mu moo ko waral soxla boo am tijjil nga tëj soxla bi seetee tëjul bon dafa bari façon nag kàndaar am na pour benn nit am na pour cent personnes am na pour tamit li xam dafa bari façon daal kenn ku ne moo xam ban soxla la ci jublu rek soxla bu mu mënta doon kàndaar bu ne ak yooyu la te bii tey di nii di tey bii moom pour man kese kese ak sama soxla la ak li ma ci jublu kese. fekk daal mën nga ko defaral nit ki moom. bien sûr rek lay doon waaw kay pour moom ak soxlam kese. amul tax may laaj mhm. suñu mbokk yi nga xam ne tey jii ñu ngi bitim réew. waaw mooy li ñuy wax les internautes wala les mhm. sénégalais de mhm. soxla yi am bitim réew tey jii ak ni ñuy jokkoog nasaraan yi ñu mel noonu. tey jii dañuy am ay soxla yoo xam ne wala bëgg am kayit. kon tey jii bu nu amee carnet bi nga defaral leen ko ngir ñoom a ay kayit mhm. mhm. waaw bàyyi taala man kànnaar en général comme nga am alal di mhm. tasaaroo di dem di naaw rek mën nga am tey am million balaa suba muy dem baa nga yor xaalis doo ko téye bii dama ci liggéey sa alal du tasaaroo du yàqu baa ñit yoral la bañ la jox mu leer na ne bëggoo ko baal bëgg nga mu fa tàng-tàng soo defee tëj ko dinoo indi lu mu naaj mbaa guddi na la ko fugg hmm? maa la wax loolu baa nga bëgg xale bu jigéente tey xelam bi nekk si loo ko wax mu def ko mu toppaloo comme li xamante ni ko bëggee ba ñu ne kii la la gis diw mu koy topp soo ko tëjee <laughs> tant que tijjoo ma ne la moom c'est fini. bu fekkee xale bu jigéen xale <laughs> euh? koo xam ne maanaam yéenee takk soxna la waaye koo xam ne bu fekkente ni saay saay la boo xam ne. non man du mu def boobu bu dee yéene takk soxna boobu ñappantaal laa koy def mooy xaaxam boobu mel ni ñax boobu mel ni li kole yi boobu laa koy def bii su ma ko defee daf may le borom moom takk na mbaa may nañ ki mbaakat am naa ci lu ma leer da koy takk su ne du ko def parce que lii dafa nekk li xamante ni taala soo ko tëjee nit mooy war a nga gis boobu buy métti bii même équipe football la ma ci doon tëj bii équipe football sax dama ci doon tëj par tour tour laay jël tëj jël xànc kanje ak njigis xam nga njigis fasee ko xale bu ndaw moo koy moo ci toog fu ñu jaar dinañu am dam soobee yàlla. yow bu tax a ñëw bu tax équipe ah. nawetaan fi ne xam nañ ma xam nga nekkoon naa bari ni hmm. nekkoon naa Thiès hmm. nekkoon naa Diourbel xam nañ Touré bu baax xam nga man dama dul bugg a wanewu hmm. dama bugg toujours def nii wàcce sama bopp. ndax man def naa lu ne pour ñu tourner émission bi. waaw daw naa waxtu waxtu bu ñu daw naa. waaye bis bi ma la ko déedéet war tey la ko yàlla du yàlla tey foo ko Ada Baldé ngeen ñëw. sang ñu nekk bitim réew. yàgg foofu loolu bàyyi fi njaboot. bàyyi fi waajur. amuñu kayit. parce que am na pays am de soo fi nekkee lu mel ni Amérique mbaa yeneen pays amoo kayit xam nga doo mën a ñëw mhm. parce que ñëwee doo mën a delluwaat mhm. yooyu moom bu dee kayit la si kattan suñu borom mhm. ci kattan suñu borom ci daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Sëriñ Babacar ma xamee kayit bu mu soxla ban parce que kayit tamit Europe dafa am turu ma ban kayit la su day mel ni rek foo nga xam turu examen bu mu soxla ah dafa am turu de yu demee noonu mbaa mu nekk bitim réew nga xam ne ban kayit la soxla ak ban xamante ni séjour la bëgg foo nga xam turu bi soo ñaanee loolu nga dóor ko am li ngay def nga jox ko mu sangu am na duñ takk moom nga jox ko mu sangu fekkee day takk joxee la mu takk taal maa la ko wax du ma wax benn fan du ma wax 15 jours du ma wax ñaari fan du ma ñooñu yow wax yàgg nga jaru may wax yow xam nga ma xam naa la su ko boromam defee bis dinañ mu ne ah di wax na ma gómma ko wante nag kayit moom alaaxuli aalinde su yàlla su borom defee wërsëgam dina ko jot loolu moom du benn du ñaar yàlla may na ma côté boobu baa nga bëgg tukki visa yi demee noonu xam man dama dul bëgg lim man dama ne soxla doomu aadama rek su ñëwee wax ma ko diis ma ko yàlla moo xam ban soxla la xool ma xam waxtaan ci ñu diis yàlla man du ma lim du ma lim ay affaire ñaan déedéet parce que mun lépp xam lépp jàlla jàlla rek moo ko am su mu déggee des fois nit di lim damay faj li damay faj la man du ma fësal loolu waaw damay damay dama du ma fësal loolu da ngay tënk rek ñaankat yàlla moom jaamukat yàlla moom sababkat yàlla moom lépp nga ci biir moo tax may faroo yàlla na yàlla faj aajo si mu nekkee si rajo bi parce que li tax aajo bu fajo moo ëmb na lépp ëmb na soxla yëpp bon deuxième bi mooy li ma la rek suñu télé bi mooy te incha allah incha allah waatal ci kaw ngeen dem si kam si kaw ngeen dem sooba yàlla loolu moom yàlla suñu borom dina ci def saayir def ci baatim dina yokko ba ñëpp xëcc te aussi ku ci woote ku ci diis soxlam bu soobee Mawlana bakk Serigne Babacar sa aajo dina faju loolu man Touré maa loolu di nuyu na sa mbokk bambara yi di leen wax anicce ani baraji bambara kaw bandiraɓe haalpularen on jarama allah jarama sonon kador keɗoɗon kam kador darto kam fof on jarama allah jarama de hono sama mbokko soosi tamit sukutunkolle e bijankote tanante mm-hmm. ah. <laughs> voilà borom kergui nak la kër massar euh, parcelle unité moom tamit di ko wax nag jokkoo njal jokkoo njal parce que séeréer la nit ku baax la ku neex a dëkkal la ku mu bëgg loolu boolem am njabootam oo su mu da mën ma déedéet Touré kër gi sa kër la toogal su dee maa ngi dund toogal kër gi sa kër la maa la bëgg sama bopp boole la sama njaboot kon taala loolu tamit dara fayu ko moo tax ba ngeen a sa émission xam defal loolu amoo fayam moom tamit ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaan yàlla guddal fanam di kontaan nag bu baax ñaanukat yi may lim leen di ñaaxaat rek saa soo li may faral di wax sama kaddu Dakar Afrique monde bi ñëpp xam nañ parce que man moom partout daal moo xam nañ koy tuure waaw du wax ñëpp ma xam ne ñi ma xam sant naa ci yàlla bu baax sant nañu yàlla bu baax li ma leen di gën a ñaax rek àdduna benn fan ñaari fan ñetti fan chaque jour njàng la xaalis bu leen jaral def doomu aadama lu bon xaalis bu leen jaral yàq doomu aadama xam nga soo déggee ñu naa la njëbër njëbër njëbër njëbër feebale tëddale takkale baaxul su la borom moom fayee million bu ko def parce que suñ la ko defam mbaa ñu def ko sa doom du la neex du la neex de kon nag nit su ñëwee sabab lu jaaxle nga xam lu mu solo kat nekk na lu sell nekk na lu baax nekk na lu yenu maana defal ko wante yàq nit féewale nit lor nit taala wax naa lu bari ñu ngi faatu seen day jotagul ay def dafa fi jaar ñu jox la dara nga lekk ñu jox la dara nga naan man de yor naa li xamante ni moom su ma ko loo ko joxee nga takko ko mbaa nga sangoo ko billaahi wallaahi taalaay ku lay jógal si lu bon moom ku ko def walla moom mi ku dem su matul ci am ndam de naa la wax loolu nag sooy ñaan da ngay ñaan lu baax sooy ñaanal ni da nga koy ñaanal lu baax su lu sante bon bañal parce que xaalis jarul loolu nit ñi feebar nañu ñu jóge na seen palaas ñu toggoon na seen jëkkër ñu toggoon na seen jabar ñi toggoon na seen fekk ñu dafa jaar ndax lan soxor ndax lan iñaan ndax lan di warul dem est yàlla bu mu koy sàkk di ko bind tàggu na la est ce yàlla bu ma leen sàkk di bind tàggu na la tàgguwu la kon nit su lay santaanee ñaan bu dee ñaan lu baax ñaanal ko lu bon nga ne ko man du def loolu suñu defee loolu rek réew mi day daal di naat ñii dañuy am jàmm di leen remercier di leen jaajëfal seet nag seet bu ci waaye soxla rek nga nekk à distance nga toog a man face à face soo ma wooyee rek incha allah dinañ daal di jokkoo ñu seetal la man moom balaa ma jox nit garab moom mbaa ma jox ko mu sangu mbaa ma di ko sarax fa mu xoolal ko pare loolu moom naka jëkk ñi ma xam loolu la ma xamee parce que mu ma tëb ma ne defali defali fekk xooluma sama rawaani wonuñu ma ak kat xam na laa nakal man bëgguma fenn adduna ñaan naa yàlla daal bu mu lekkee ñaari dërëm mu doon du ma lew mooy li ma sànq ñaanal nit nag mu nangu mu antu yàlla la jógee si yàlla tamit si moo koy nangu moo koy dogal kon nag su yàlla dogalee borom moom aajam bi day faju si man yàlla ngeen essi su yàlla dogalee seen aajam faju ma yàlla bu mu leen a xam barke Serigne Babacar waaw ñi ma gis ñëpp ñi ma xam ñëpp nag sant naa si yàlla war nag ñeneen tamit ñi ma xamul woon waaj maa xam tamit bëgg ma xam tamit ku ñëw yàlla na yàlla fàcce aaju aaju bu mu munta doon nag ku mu nar bu faj aajam yàlla bu mu ko xam nag wax dëgg yàlla mhm. di leen jaajëfal di leen remercier yow mi taal si la sama xarit ak bal sama mbokk xaal bi a jaaraama allah jaaraama maa ngi lay remercier le di la jaajëfal di maa yoo àlla wàllu yoo àlla dandu yoo àlla faabu yàlla suur jërëjëf euh, alaaji Demba Touré Kanka Moussa ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne wax dëgg yàlla tey jii may nga ñu opportunité bu toll ni ñu mën a ñëw feggoo ak yow jokkoo ak yow waxtaan ci ndax nee leen bi ma koy bëgg ba léegi yàgg na li tax nag moom yàlla dafa dogal wax dëgg yàlla mu doon bambara euh, doon tam koo xamante ne wax dëgg yàlla ku Sénégal xam ku réew mi xam ku bitim réew xam ba tax boobu ba ñu topp ci di daw ngir mën a am jokkoo bi nga xam ne jokkoo nañ ko moom mu néew mu bëri dana am am na lu mu ñu jàngal am na lu mu yeewaatam ci askan wi ndax nee naa leen émission bi nga xamante ne mooy émission bi di faj sa jàngoro dara du yitteem dara du soxlaam lu dul dugg ci biir gox yeeg goxaat yi dugg ci biir réew mi du fin fond du Sénégal rien que pour gis ñi nga xamante ne ñoom la suñu borom jox kun fa yakunu ñuy ñaan yàlla muy nangu ñuy faj doomu aadama yi ci mbaaxu suñu borom bi muy saafarawu kon fu ñu leen fekk fu ñu mën a nekk itam ci biir réew mi danañu jaral ñun ñu jóg su fekkee ji leen fa seeti leen la ak ñoom jëflante ak ñoom ngir mën a jukki ci seen xam-xam ba indi ko jox ko askan yoo xam ne ñoo koy teewoon ndax dégg ngeen ko léegi li mu jot a mayee sax tabàyyi ko xel ndax nee na couleur yëre mbubb bu bëla li muy fànkal doomu aadama bi dafa bëri ba tax na bi mu koy wax sax ma yërmande la ko waxee kon yal na suñu borom boole dimbali suñu borom boole ñu defal topp defal ñu dégg ba kenn ku ci nekk itam lépp loo xam ne sama mébét la ak sa bëgg-bëgg rek euh, nga jokkoo ceeg moom sama borom defal la ci tawféex seen émission faj sa jàngoro la woon tey ñu ñëwoon fii ci Kër Massar euh, di jaajëfalaat bu baax a baax équipe technique bi ñu àndaloon ak caméraman yi ku ci mel ni sama sama sama xarit Balde di ko ñaanal moom itam bu baax a baax ñoom ñëpp sama borom boole leen defal jàmm ak ku ci mel ni Mansour di leen ñaanal sama borom defal leen tawféex defal leen taysiir incha allahu rabbi beneen émission faj sa jàngoro ak yeneen daanaan ak yeneen kàngam ndax lépp rek ngir mën a saafara soxla wi nga xam ne moom la askan wi am jërë ngeen jëf